ma egsi ci question boo xam ne ngeen plusieurs fois muy mbiru loyer dëgg la président de la république yéeneem mooy sénégalais yi euh, seen coono wàññeeku seen pouvoir d'achat lépp loo xam da ci superflu Madame, dañ ko cee teg noonu rek mu xol nu ñu ko lijjantee 2014 tàmbali na ak projet de loi Bobu. projet de loi nak dañ koy saytu deug la amna lu ci dox te man mi gis na ay sénégalais yo xamné dañ dan fay euh wàññil nañ leen amna ci ño xamné ne peut-être bañ nañ muy ay bailleurs yo xamné ils sont entre ils sont passés entre les mailles du filet ndigal bi président de la république joxe ci conseil des ministres yi ngeen mujjee restructurer le secteur de l'immobilier secteur de l'immobilier peut-être bëri na ay angle mort d'abord qui doit être promoteur immobilier dëgg la ku que rek taxaw andi kayit ne damaa bëgg nga hectares damaa bëgg nga jox ma hectares loolu war nañ ko seet promoteur immobilier ici, si boppam nañ ma la carte du promoteur nga xam promoteur bi bu ñëwé dafa wara déposer ben caution mo xam 10 millions la wala leneen bu ko défé ñu xam ne kii li wax sax xana war na jot ci mom né mën na ñaarël ba ki est agent immobilier loolu yëpp dañ ko wara xol ni ngeen ko waxé agent immobilier naka lañuy liggéey caution man japp naa ne war nañ fi ñëwaat assemblée défar projet de loi ñu xol la caution parce que caution liko ko tax du garantir sa location ndax da nga koy fay déedéet kër gi ngay dugg ndax boo génnee bu fa amee yàqu-yàqu boo ko defarul caution bi loolu lay jëriñ donc mën nañ xool caution bi

li nga xam mom lañ bëgg proposer le 9 janvier président de la république dina tenir conseil présidentiel bi nga xam mom moy définir de façon définitive li nga xam mom lañ jëm ci walu logement politique yak mesures yi ñun suñu mbébét lan la moy ku ñu jox foncier 50 yi nga yóbbu ko ci logement social ñi nga xam ñoo doon waxal sànq suñu mbokk yi nek diaspora 20 président 30 sax la bëgg looloo yéeneem mais ñun dañ ne nañ tambalé 20 besoin bi fii la gën a nekkee ci waa Sénégal léegi nag lu ñuy gën a monter année par année année par année ñuy xool naka la ñuy ci 30 pour cent yooyu ñu ne 20 pour cent ñu def ko logement des Sénégalais de l'extérieur 30 pour cent yi ci des nag ñu bàyyi ko promoteur bi moom mu organiser wu xool ban montage lay def ngir mën a équilibrer li nga xam ne moom mooy lotissement am parce que nag ki nga xam ne promoteur la tamit day jël ay risque dañ ko war a garantir ne li muy def am na rentabilité loolu nag ma am mbégte wax leen ne d'abord 60 pour cent. Si axe Dakar Thiès Mbour lañ ko wajé parce que demande de logement bi fi la gëna nek suma déggé ñu naan Diamniadio la yem looloo tax ma len da ngeen xamul né Dakar c'est une grande métropole bo xamné légui dafa dem ba créer li ñuy wax conurbation Dakar Thiès ak Mbour danaka benn la boy romb dëkk yi amatul sax espace donc boy wax da nga naan la grande métropole Dakar Thiès Mbour loolu lañuy wax le triangle Dakar Thiès Mbour donc triangle Dakar Thiès Mbour bobu 60 des logements fa lañ ko bëgg a def 40 des logements ñu ne. bépp dëkk bu nekk Sénégal bu ëpp dix mille habitants war ngaa mën a ñëw taxaw Aminata jaaw wax na ko sànq maa ngi fàttaliku li mu wax mooy jawbe dëgg la jawbe zone la boo xam ne luuma bi dafa important nit ñi ne fa am koom mais ñooñu war nañ leen mën a créer seen programme logement comme yeneen dëkk am na ñeneen ni ko fi tudd mais li ma bëgg ngeen jàpp rek mooy logement ni ñu koy traité mooy d'abord l'offre jàppale ñiy tabax ba ñu am suuf su jàppandi suuf soo xam ne du am benn charge fexe ba terrain yooyu bu leen koy jox tamit ñu mën ko titre gratuitement buñ ko titré ñun morcelé leen ko ba nga xam ne parcelle bu nekk bu amee ku ko bëgg a jënd banque bi dina sawar joxe detam seen état du Sénégal naka lay jàppale promoteur yooyu euh, président Aymérou Gningue wax na ko sànq dañu créer li nga xam ne mooy fonds de l'habitat social yéen ko créer ci autorisé ci loi d'orientation sur le sur le logement social bi nga xam ne 2016 voté ngeen ko loi boobu li mu wax mooy état du Sénégal day créer fonds de l'habitat social jël ay crédit budgétaire ak ay taxes yoo xam ne dañ ko dëppalee habitat social lu mel ni ciment def nañ ko at mi 2000 francs muy 1 franc par kilogramme boo ko nattee muy 2000 francs par tonne defe naa mois de septembre monsieur le ministre des finances wax nañu ne toll na ci 10 milliards li nga xam ne collecté nañ ko fin d' année war na àgg ci 15 milliards loolu ñu dugal ko ci fonds de l'habitat habitat social fonds de l'habitat habitat social boobu ñaar lañ ci def dañu naan ana ñaata ñoo bëgg a jënd kër te mën na am amuñu bulletin de salaire wala mën na am seen revenu matul état du Sénégal xol banque yi nga xamante bëgg nañ leen lebal mais buñ leen waree lebal mën na am ñàkk bulletin de salaire bi moo tax mënu ma leen lebal wala revenu bi dafa am lu ci manqué loolu la ñuy wax fonds de garantie donc fonds de l'habitat social dafa am partie boo xam ne garantie la état du Sénégal jël ko joxe ko li leneen li ci topp nag mooy li nga xam ne bonification de taux la ñu ne taux bi 6 pour cent wala 7 pour cent la waroon doon ñu ne ah 15 milliards yi nañ ci jël 1 milliard képp ku waroon fay mën na am taux 7 pour cent ñu 1 wala 2 bi ndax mu gën a yomb mu gën a ci yow. lu mais xam leen ne mbébétu président mooy woyofal euh, li nga xam ne moom mooy lu yaas ci nit ñi waaye fexe tamit ba ku nekkoon ci lu yaas a moom sa loolu moom mooy li nga xam ne ambition bi leneen di nag mooy mbiru euh, hygiène publique ak de vie am na ku ko wax léegi defe naa honorable député Diallo la ne lutax mu am programme bu tudd cadre de vie te amul programme bu tudd hygiène publique donc lépp dañ ko boole ci cadre de vie mu doon benn programme cadre de vie hygiène publique ak gestion des déchets mën na am tour bi moo yem foofu waaye li ñu leen bëgg a wax mooy euh, ni ma leen ko waxee ci njëlbeen bi rek 2019 2024 c'est des politiques de transformation sociale mën na am fële des politiques de transformation infrastructurelle budgétaire économique mais bi yoon li ñu bëgg mooy ñun suñu société ñu sentir bu baax ne yokkute yi yegg si na ci nit ñi te yokkute yi yegg si si nit ñi li ci jiitu mooy nga mom sa keur moy nga dekk fu deppok euh jam waye tamit nga dekk fo xam gis nga ne hygiène publique amna fa cadre de vie amna fa loolu nak tambali nañ ci ñaari patch la zéro déchet bi ngeen di dégg ñaari patch la dafa am patch bu njëkk bo xam moy amélioration du cadre de vie moy jardin public yi moy mbedd mi ensablement bi moy li nga xam moy gestion des gravats de chantier loolu ñu ngi ci liggéey am benen patch nak bo xam liko li moy gestion des déchets parce que déjà wax naa leen ko 1960 bi Sénégal doone Sénégal ba léegi benn méthode rek lañ mës a am mooy collecter décharger ba tax looloo waral mbëbës mi ngeen di dégg mbëbës xam ngeen ne zone la boo xamante ne fi mu environnemental euh, du point de vue environnemental nekk na ci risque ci péril bu doy waar mais président de la république jël na ci matuwaay ba ñu liggéey ci programme boo xam ne moo tudd Promojet Promojet nag moo dajale lépp loo xam ne rek dafa jëm ci gestion des déchets